نختاره له كما أصلح أمور الأمة وأطنب رضاه ومواهبه الجمة على المريد الصادق الشيخ إبراهيم فال المدرب بالختمة الملقب بباب المريدين الحاوي الحكمة mbokk جلدي yi طالبي taalibe yi ñu بني أي بك nuyub jullit buy بني أي بك jullitam di sant suñu borom subhanahu wa taala cant gu amatu yamukaay di julli ci xayrul xalqi sallallahu taala na mu soobe suñu borom ñu jullee ko ci moom di leen wax ne bisub tey ñu ngi fas yéene waxtaan ci aslëf ci dunduk Cheikh Ibrahima Fall bokk ci taalibey Cheikh Ahmadou Bamba ñi nga xam ne seen yitte lu kawe la ci seen boroom bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañ di sëriñ bi njëkk a tarbiya njëkk leen marale ak seen boroom njëkk leen a fóot ci àdduna ak luy lépp luy yàqe ba bàyyi leen kenn ku nekk mu yebal la fi barab ngay defar lu bari ci jaami suñu borom yi Cheikh Ibrahima Fall moomu ñu bëgg a waxtaane nag tey xam ngeen ne arab yi dañuy wax ne laysa taarixu màkkaana histoire nekkul ne na mu xewe woon dëgg-dëgg noona lañ la koy nettalee ndax loo xam ne fekki woo ko woon lii da koy jàng ci téere lii nga laaj ñu nettali la ko la gën a siiw ak xabaar yañ la ca jox rek nga ca mën a nettali loolu moo waral soo dee jàng téere histoire yi ba ci histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga fekk xew-xew boo xam ne bii bii historien da koy nett leen nii bee historien nettalee ko neneen loolu bari na lool boo ko seetloo ci biographie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba xataa ci man at la ganee àdduna ak ca bis baag weer wa sax boroom xam yi dëppoo ñu ci kon nag rawatina ku mel ne Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne gëstu ak laaj rek lañuy waxe ci moom nga xam ne amagul kenn ku jóg ngir taalif téere boo xam ne bi spécial ci ay jaar-jaaram la ba mu génne jamono lu dul lenn ngay fekk ci téere sëriñ bi mu tudd ko wala téere bu mel ne téere sëriñ Bassirou Mbacke mu ko tudde wala ku mel ne Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana wala feneen waaye lu ci mën a am nag waxtaan wi moom luñ ciy wax lu mën a doon lii maa ngi koy toxale ci téere téereb sëriñ Bassirou Mbacke te loolu dana ci bari lool ñaareel ba danaa ci indi ay sa yoo xam ne yii maa ngi ko jële ci ki nga xam ne kii mooma moom lañ ma tudde mu yar ma moom maam Cheikh Ibrahima Fall yar ko leneen lu ca dolliku ma di ko toxale ci yenn ti boroomi xam-xam yi nekk ci yoonu murit ak wax ju siiw joo xam ne ji di gën a bari dëppoon nañu ca Cheikh Ibrahima Fall wax nañu ne mi ngi gane àdduna ci diggante suufas njabi Fall ak waqi Fall nee nañu loolu mi ngi xew ci atum 1855 ci way juróom wu góor wu tudd ahmadu roqaya fall ak way juróom wu jigéen wu tudd soxna zeynab njaay kon cheikh ibrahima fall mi ngi ñëw ci sëriñ tuuba ci ama sasi muy atum mille trois ci ati gàddaay gi kon bu fekkee ni calcul nga diggante boobu lim lay jox bi muy ñëw ci sëriñ Tuubaa kon mi ngi am ñaar fukki at ak juróom ñaar ndax moom dañoo wax ne ñetti at la ko sëriñ Touba jiitoo ci àdduna ñetti at la ko jiituwaate ca péyib suñ borom ba maanaam génn jamono léegi kon ñu dal di war a waxtaane léegi Cheikh Ibrahima Fall wër gim doon wër ak gëstu gi mu doon gëstu sëriñ Touba lu njëkk mu koy gis ak bañ gisantee ñoom ñaar waxante yi nga xam ne waxante nañ ko ak yitteem jooju ak nammeelam googu waaw point bi ci njëkk mooy sëriñ Saliou Niang mii ma la tuddoon léegi toog nañu bi ñu nekkee ci daara ji mu di ñu nett li ñuy dégg mu ne maam Saliou Fall rakki maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko nett ne ko benn bis damaa dem ci tool yi ànd ak Cheikh Ibra ba waññeeku bi ñu toogee ci genn garab di noppalu lootuma garab ga garabug soon wala garabug wénn daal foog naa ñaari garab yooyu la waxoon nee na bi ñu toogee di noppalu moom sëñ Saliou Fall xool genn ñaxuk salguuf bi mu xoolee ñaxuk sal guuf gi am lu ko ci suñu borom déggal ci sàbbaal gi nga xam ne gi ñax gaa ngi koy sàbbaal ndax xam ngeen ne alquran moo wax ne wa in min cheyin illaa yusabixu bi xamdihi walakin laa ko tafqahuna tasbihahum innahu kaana xaliman gafuran suñu borom nee na amul lenn lu nekk diggante asamaan ak suuf lu dul ne mi ngi sàbbaal yàlla waaye insaanan basiitan nu yitu kese du mën a dégg sàbbaal googu du mën a xam sàbbaal gi nit ku jege yàlla dëgg dëgg nag dana dégg sàbbaal gi dana ko xam sëñ Saliou Fall léegi daal di wax Cheikh Ibra ne ko man de ñax gii ma jàkkaar lool sàbbaal gi muy sàbbaal boromam dégg naa ci nee na nee na yow Cheikh Ibra xutbu jamono jii feeñ na te balaa sa mbir di yéwén faw nga gis ko yéen ñaar ngeen liggéey loo xam ne li dana jëriñ bindee fi suñ borom yi sa mbir daal balay defaru nga dem nga dem seeti ko nee na bi mu ko defee sëñ Saliou ñang nee na sëñ Saliou Fall moo leen nettali lii nee bi mu ko defee Cheikh Ibra gopp bi mu yoroon la dal di dóor ci suuf mu dal di damm bi mu dammee mu dal di jël la féete bopp ba dal di koy def aw yat def ko gannaay ne kon mang koy wëri ba fu ma ko gisee fofé la tegg dil suwatul ci kër ga kon loolu yi mooy cosaanal yat woowu cheikh ibra yor waroon na lool ak yat yi nga xam ne moom la ñenn nit ñi di yore léegi yor yat woom day mel ne kuur wëlbateeku di ko dóor ci saw ci yaram cheikh ibra mus sa dóor aw yaramam mus dóor aw yaramam musta jël ak cour tamit di ko nit wala mu di ko menacé léegi euh, bala ñuy jàll foofu sax ñu def beneen leeral foofu mooy sëriñ Saliou Niang wax na ne Cheikh Ibra Fall lu njëkk muy seeti sëriñ Touba nga xam ne kër mutu fa mbombe googu ma nekk mu nekkoon bu guddi masaana jot daf daan bokk ci ñooñu alxuraan tagg nga xam ne dañuy fanaanee jaamu seen boroomam jaamu seen boroom di fanaanee xoole guddi waaye Cheikh Ibra nee na bu masaan di fanaanee jaamu boroomam bu fajar si dee waaj a toj nee na mboolem wàllu yu nekk ci kaw suuf seeni maqaama seeni daraja suñu borom da koy riimale ci kanamam waaye bu jàkkaarloo seen daraja yi day daal di gis ne mboolem ñi nekk ci kaw suuf amu ci kenn ku ko gën a jege yàlla nee na mu daal di ne garab day bu la sutul du la mën a may ker ba ni Sëriñ Tuubaa eh, feeñ léegi soo demee ci Minanul Baaxil Xadiim bu Sëriñ Basiru Mbàkke wax na nee na xakaa alaya muriduhu a Cheikh Ibrahima Fall wa huwa min firsaani niyati tilwa cheikhihi قال إن أول ما أقط عليه الشيخ إنما إنما أو إن أول ما أقط عليه من العهد والبيعة قلت له إني لم يخرجني من بيتي إلا طلب شيخ موصل أجد من حاله نور حق تندفع أمامه ظلمات الخلق وتنجلي به آيات الحق بنم أجي نينا شيخ إبراهيم فال موما نتلي موم سرين بسير مباك موي وخ نينا شيخ إبراهيم موما وخ ني من دي كيرو غوما غيسنتك سرين توبا لما نجيك جاينتك موم dama ko wax ne ko man dey dara taxumaa génn sama kër lu dul sàkku sëriñ boo xam ne bii dafa may mën a àggale ci yàlla sëriñ boobu danaa fekk ci xaalam leeru dëgg goo xam ne gii lëndami bindee fi day wuññiku ca kanamam taani dëgg day feeñe ca moom daal dina ko lawlam ajib mi man hadi sifatu illaa xabruhu la balakani sidqu niyati fihi amali ne ko sëriñ bi may seet nag su fekkoon ne wër naa war ba gisuma ko lu dul ñu ma faatu na ba ma fekk ab bàmmeelam sama yéene ju dëggu dana tax danaa jaamu sama borom foofee ci peggu bàmmeelam ba ba am la ma bëggoon ca gis ka ma gis bàmmeelam ba daal di koy wax ne ko wa inni ubayiuka ala an sëriñ Basiir nee na Cheikh Ibra ne ma la a ca dal teeg mooy damaa wax sëriñ Touba ne ko maa ngi jaayanteeg yow ci nag di la xamal ne àdduna moom bëgguma fi luy tollook benn pepp kawar innama hamidlaahu wa daarul axira sama yitte daal mooy yàlla ak sama këru alaxira nee na bi waxee lii sëriñ tubaa daal di koy tontu ne ko yaa Ibrahima ana law lam ajid min athaarihi sallallahu alayhi wa sallama illa manzaru hadihi nujum والسماء التي تحققت أنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليها لوثقت بأن نيتي فيه ومحبتي كفيلتان لي بقضاء بقضاء الحاج نينا سيرن توبا نيما يو ابراهيم فال كون داي ماغ يو ñoo bokk mbir ndax محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم mi nga xamne mom suma ma fekkutoon benn jeexital bu mu fi bàyyi gisuma fi alquran gisuma hadis gisuma dara wóor gi ma wóor ne biddiw yi tiim ma daan na tiim yonent bi salaay salaam asamaan sii may xool daan na yonent bi salaay salaam daan na ko xool li ko daan tiim tiim ma li daan xool ma di ko xool nee na sama yéene ju dëgg sama pas-pas bu dëgg dana ma may danaa teewlu foofu màgg yonent bi salaay salaam jaamu ci yàlla ba lépp lu ma bëggoon danaa ko ci am waaw daal di koy wax nag kon ci ab gàttal ne ko ala anni ubayiuka ala al imtisali wal ijtinabi wa tarqiyati al himmati ila allahi wala tarju minni fi dunya arisan yuzilluka fadlan an ahlin wa dar daal di koy wax ne ko nag kon maa ngi lay nangul sab jaayante waaye nag ci kaw yi sart de mooy lu ma la digal nga def ko lu ma la tere nga teet ko te it sa yitte yëpp dootoo bàyyi benn yitte buy taxawaalu ci àdduna sa yitte yëpp sa bëgg-bëgg yëpp da nga koy yéegee aj ko ci yàlla subhaanahu wa te bul yaakaar fii fi man nag luy tollook am mbaar mu lay keral waroo ko fee am rawatina nag ngay am ngay ngay samp kër ak di am ak njaboot moom bu ko xalaat mukk ndax li nga bëgg képp ku ko bëgg warta bëgg ci àdduna dara ah bi mu ko defee kon ni ko sëriñ Moussa Ka nettalee ca way wa nee na Cheikh Ibrahima Cheikh ci boppam moo nettali ne bi nga xamee ne mi ngi ba wër Serigne Touba wër na ko ba sonn gisu ko <coughs> mu daldi dem benn dëkk bu ñuy wax ba Daqaar ba Daqaar googee ba mu fa demee fekku fa ku dul ku ñuy wax Serigne Tayba Serigne Tayba moomee ba ko Cheikh Ibra gëstoo daal xam na ne kii du sëriñ bi muy seet ba mu ko defee mu daldi fay def listixaar ba mu fa defee listixaar tànn loo suñ borom subhanahu wa taala naka la suba jot rek suñ borom nangul listixaar ga jaarale fa ku ñuy wax sëriñ maxtaar touré sëriñ maxtaar touré moo ma fekk sëriñ tubaa moo ko yëpp moo ko yebaloon mu ànd ak sëriñ maxtaar touré ab diir dal di gis sëriñ adama gay fekk sëriñ adama gay moo mujj jóge ci sëriñ tubaa ndax xam ngeen ni kuy wër kuy gëstu leeruk suñ borom subhanahu wa taala ak fa ko suñ borom def day mel na lu koy xeeñ ku mu gis rek ku gën a jege foofa dana ko dal di xam ci say màndarga sëriñ adama gay moomu kon la mujj banam àgg ci sëriñ tubaa fekk ko kajoor moom la sëriñ Moussa ko wax ne mas nay xibaar ak jébbaloom bay wax ne yàlla mi ko moom moo ko ne bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe tegtal ko yoon wa ab murit de tegtal ko yoon wa ab murit de aw baraw pexe mërit ba am ngërëm bari murit te dootu ree di tex texi mu daal di dem tey ba daqaar ngir dégg bamba di fa xaar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 ñaar fukki fan ci wéru koor bisub dibeer le mbir ma woor cheikh ibra yaari yi pexe kon nag bi nga xamee ne cheikh ibrahima fall ak sina ci sëriñ touba noonu ko sëriñ moussa ko waxe fekk ko mbàkk kajoor muy ñaar fukki fan ci weeru koorum ama sasin muy 1300 ci ati gàddaay bi wax nañu ne diirub at yi nga xam ne nekk na koog Sëriñ Tuuba waxtu woo xamee ni wii ñëw na ci Sëriñ Tuuba di ko nuy si su koo jox loxo mukk lu dul ne dafa jàpp soog a ñëw jox Sëriñ Tuuba loxo ngir fonk gum ko fonk ak màggal gum ko màggal tabaski ga nga xam ne gi moo ko fa njëkk a fekk nee nañu nit ñi dañoo xëy kenn ku nekk jël sam xaf am sam xar di rendi moom mu daldi jël ak buum yeew ci baatam ñëw nuyoog Sëriñ Tuuba ñu nuyoo moom ba noppi daldi bàyyi catu lo catu buum ci loxol Sëriñ Tuuba nee na sëriñ bi nekkul lii nag mu ne ko bisub tey la tabaski kenn ku nekk yaa ngi jël sam xar di ko rendi ma di la xamal ne nag xar ya dagane borom tabaski noonu laa la dagane lu la soob nga def ko ci man bu la neexoon tey jii nga rendi ma kon nga xam ne loolu mooy melokaanu murid saadiq noonu la war a joxe boppam sëriñ ba nga xam ne bii ci moom la aju ndax dañuy wax ni sëriñ bi bu fekkee ne mat na sëriñ saasoo ak see ci moom danga war a mel kal mayti bay na yedday mu xasilin noonu nga xam ne néew bi dafay tëdd ci kanamu ki koy sang bu ne wëlbati leen ma ndeyjoor bu ne wëlbati leen ma càmmooñ noonu la war a mel ci kanamu sëriñam boobu waaw soo demee ci minumul baaxil xadim sëriñ basiru mbàkke nee na lam yu sir li muridi ila tabarruki bihi wa taazimi xaalihi walakin baharahum nuura taxaquqihi bil xaqaiqi alqudusiyati fahamoo bihi sëriñ basiru nee na moom sëriñ tuba musuta jindi kenn ci taalibeem yi naan la kaay di barkeelu ci man wala nga di ma màggal li waral taalibe yi doon barkeelu ci moom ak di ko màggal nag muy leeruk suñ boroom gu sell gi wàcc ci moom fees dell xolu taalibe yu gëlëm ndax loolu boo ko seetloo rek yomb naa gis ci zahir bu fekkoon ne dañoo nekk ci waxtu wu lëndëm benn làmp rek tàkk di leer ci barab bu lëndëm mboolem lu naaw xam ngeen ne ca barab boobee leer ga nekk fa lañ jëm te suñ fa xasee àgg dootuñ fa mën a jóge fa la nekk di biiw rek ruuxu doomu aadama it dafa am lu muy mar ci leeru boromam bu jamono lëndëmee waxtu woo ni nit koo xam ni kii suñ borom waajal na ko def ci moom leer bu mën a leeral xol ak ruux xoli doomu aadama yi ak ruux yépp dañuy xëcc jëme ci moom sëriñ Basiiru nee na xakaa alaya annahu kaana awala man amila bi hada maahu al cheikh ibrahima fall sëriñ Basiiru nee na sëriñ Tuubaa moo ma wax ci boppam ne ma barkeelu gii ak màggal gi taalibe yi ma di ma def day ki ko njëkk a def mooy cheikh ibrahima fall waaw waaw nee na ki ku ko njëkk a nettali mooy ku ko doy ku mu ku mu ku mu dëgërloo nee na ginnaaw loolu Sëriñ Tuubaa moo ko nettali ne ko annahu kaana maahu fi safarin hatta nazaloo manzilan yuridu salaata fi baadi arbaadi mbakki kajoor nee na Sëriñ Tuubaa nee na ko benn bis damaa ànd ak Cheikh Ibrahima Fall ci lenn ci dëkk yi nekk mbakki kajoor di waxtu julli jotee nee na may jàpp mu tàmbali moom Cheikh Ibra di taata ndox mi bàyyi ko ci sama cër yi ndox mi lu rot ci ay loxoom rek mu dal di koy naan di ko diw ci yarañ ci ciw yaramam nee na Sëriñ lam ca teg mooy daf ko ne li gën a yéeme dey mooy anni maa raaytu xattu man yufalu bihi haada wal muriidu aydan lam yara bi aynihi wala fil bi man yafaluhu nee na li gën a yéeme ci mbir mi mooy man day musumaa gis ci sama waa jamono kenn koo xam ne kii ña ngi lay defal loolee ma Cheikh Ibra doon defal nee na Cheikh Ibrahima tamit gisul ci ñaari bëtam yi jàngutoon ci benn téere kenn ku ñuy defal loolu lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek lañ mas a xam ci ku saxaaba yi daan defal loolu waaye nag Serigne tubaab dafa nekk alwaarisul kaamil muy héritier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boobu mu yore moo waral léppam di nuroo ak lépp yonent bi sallallahu alayhi wa ndax su fekkee ne jàng nga histoire ba ci téere la vie du prophète bu docteur Haykal boobu sax soo ci demee ci amal Hudaybiya bi nga xamee ni bii yonent bi sallallahu alayhi wa bëgg naa dugg Makka waa Makka ni ko doo fi dugg ñuy yebal seeni ndaw ba yebal kenn ci seen njiit yi ki ñu wax Urwatum nu Mas'ud mu daldi ñëw ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba mu dello dafa wax ne ya ma'shara quraish inni ji'tu kisra fi mulkihi wa wa qaisar fi mulkihi najashi fi mulkihi wa inni wallahi ma ra'aytu malikan fi رأيت qat misla muhammadin fi ashabihi la yatawaddu illa tadru wudu'ahu wa la وضوءه min sha'rihi shay'un illa aghzuhu wa innahum lam yuslimu li shay'in abadan mu daldi ne yéen wa Quraysh ma ngi len di watal ne man day dem naa ca réewum persiya gis kisra muy seen buur fekk naa ko ca nguuram nga nañ koy màggale muy xaysar buuru rome yi rek yi tamit dem naa ba fekk ko ca nguuram nga ba gis nañ koy màggale négis tamit dem naa ba éthiopie fekk naa na nga xam ne noonu la ko euh, noonu la ko waa nguuram di màggale waaye maa leen di waatal ci yàlla ni musumaa gis benn buur bu amee daraja wala buur bu ñu màggal wala buur bu ñu wekk ni nga xam ne noonu la saxaaba yi Muhammad yi wege Muhammad ndax moom saa su dee jàpp dañuy njëkkante njàppin mi di ko naan ak di ko diw ci seen yaram waxtu wu wenn kawar daggee ci boppam bi balay laal suuf ñu njëkkante ko waxtu woo xamee ni wii lu bàyyi ko ci moom rek dañ koy jël di barkeeloo te la ci gën a waar mooy moom toppi wuñ ko dara du alal du lenn dañ koo topp rek ngir topp ko soo demee ci téere bu tudd kasful xumma an jamil umma bu cheikh duwahab mu ne kaana sallallahu alayhi wa sallam laa yatanaxamu naxaamatan illaa waqaat fi kaffi rajulin min ashaabihi fa yadluku biha wajhahu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musta xaaxtandiku mukk saa su ne xaax bala muy tëfli rek saxaaba yi dañuy njëkkante tàllal seen i loo xaaxtandiku wa taf ca dal ca su ko defee ñu diw ko ci seen yaram ak seen kanam te kenn sikki sàkkawul saxaaba yi ne kuy nite ñoo la gën a nite lépp luy loo xam ne lii dafa civilisé dafa civilisé ñoo la ko gën a xam waaye xam nañ tamit mbuutum suñ borom fan lay bàyyi ko xam nañ sell gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sell ndax liy liy firndeel ne ñoo gën a nite képp kuy nite alquran moo leen tagg wax ne laqad radiyallahu anil muminina is yubayi'unaka tahta shajarati suñ borom day gërëm na way gëm yàlla yi waaw muy jullit yooyu nga xam ne toppoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laq ay ngërëmi seen boroom léegi kuy nite xam nga ne ñooñu ñoo la gën a nite kon ñaareelu xew-xew bi ñuy nettali foofu mooy ne sëriñ Saliou ñag nettali nañu ne bu mu nekkee ci daara ji benn bis dafa dem ci àll bi taxan sayu mat wu rëy bëgg koo indi ci kër gi takk say wi bëgg ko yëkkati àttanu ko mu daldi tekkiwaat say bi ngirub dogu bu rëy daldi cay dolliwaat lu toll ne na mu toll woon daldi takk say wi ba mu dëgër mu daldi ne yow say wi su fekkee ne defuloo ma noonu bàmmeel di tañ ci nit ci biir bàmmeelam ba soow ma mu njëkkoon a nàmp ca way juram di génn teeg defoo ma noonu danaa la yóbbu kër sëriñ Tuubaa daldi yëkkati say wa suñ borom jox ko kàttan mu yëkkati ko loolu mooy misaalum rek la sëñ Moussa Ka naan kenn mus la gis sason wu booy du daw ku koy musloo ko jooy beneen xissa bi ci xew-xew yi nga xam ne yuy wane ak dogoom la ak nammeelam gu rëy muy genn taab gu mosoon a dal Sëriñ Tuubaa ci jamono yooyu taab gu metti doy waar lool Cheikh Ibra ñëw tiim ko xool ko daldi dinaa Sëriñ Tuubaa lii metti na de dal jël baaraamam daldi àkkati taab googee ba mu àkkati ku mu këpp ci gémmiñam manq dëtti wànjar jooju daldi koy wanaasu loolu nag boroom xel mu gàtt loolu mën na koo jaaxal waaye loolu it lu am cosaan la ci lislaam ndax du kenn du ñaar am na ñoo xam ne ñii naan nañ dereti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci saxaaba yi ku mel ne Abdullah ibnu Zubayri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàjju na nàmpatal deret bi mu génn mu jox ko ne ko demal tuur ko abdullah ibnu subayr genn ba kenn gisatu ko mu di jël deret ji daldi teen ak mom nan ko bi mu ñëwee bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw ana deret ji mu ne ko ah, dem na bu ma kenn gisetul ma laq ko fo xamne ne kenn dootu ko gis mu ne ko la allaka sharibtahu ngi mel na da nga nan deret ji mu ne ko waaw waaw dama ko nan yaronte sallallahu alayhi wasallam ne ko toskare ñeel na la bayiko ci bindeef yi toskare ñeel na bindeef nak bayiko ci yow ndax deret yaronte sallallahu alayhi wasallam ku mu nekk ci sa biir yaram dana am benn xaal bu mu la jox melokaanu biir bu mu la jox woo xam ne nit ñi ñoom duñ ko yëg fañ la tegoon rek lañ lay teg kon xam ngeen ne jëf yi mu jëf yi mu nekkee ci daara ji bari na lool tumurank bu nekk tumurank na fa waaye luy tollook juróom-ñaari at rek la liggéey ci daara ji Serigne tuubaa daal di koy wàccee wax nañu ne mi ngi ko wàcce ci bisu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm ci atum wasasin muy 1306 ci ati gàddaay gi bi sëriñ Touba di waaju jóge Daaru Salaam di sanc Touba bi mu ko defee mu daal di ko yebal ndar bi mu ko yebalee ndar bi mu demee wàcc ci kër alaaji Kamara bi ñu gënoon a xam ci sëriñ As Kamara mu nekk ak moom ab biir sëriñ As Kamara daal di ne ko génnal ñu séq dex gi maag yow ndax maag ndar maag yow daal xajuñu biir ndar ba mu génnee ci la daal di sanc dëkkam yooyu ci la sanc Ndaay Faal Juga fa dem sanc goga googa ca gànjool biireen goga ci ganjol neena ñu fa la fa la talif téere bobu ñu wax ne moko talif muy murit sabab di waral mu talif ko neenañ dafa fekk ñenti ñeenti manam ñenti atté kat yu wër ganjol ki ñu ngi tuddu mayara jum ki demb yëmu at ak serigne nyang ñang ci kabdu ak ibrahima sogg ci pal bi ñu leen bindee lettre di leen gaaral ngëneel serigne touba yor di leen wane ne daal li ngeen am lu mu rëy rëy lu mu màgg màgg bu ngeen gisante woon ak Serigne Touba liggéeyal ko bu ngeen ñàkk li ngeen yore te dana leen ko fulal yëkkati leen ba ngeen àgg fu sori ci seen borom ba mu ko defee ñaar ñi daal di ñëw mu tegtal leen Serigne tuubaa ñaar ña ca des ñoom bañ a ñëw ñaar ña ñëwoon mooy Serigne Mafal Ñang sëriñ Mafal Ñang moomu mooy way juru soxna Aminta Ñang ñi nga xam ne mooy way juru sëriñ mohamadou aminte fall ni di xalifa bi sëriñ saaliwu ñang tamit ca njabootu sëriñ mafal ñang googee la bokk sëriñ saliw sëriñ mafal ñang boobu keroog bi muy ñëw di fekk si maam cheikh ibrahim mu leen di yebal ci sëriñ touba keroog wax nañu ma ne sama maam la àndaloon di tudd sama maam la la àndaloon di tudd Ablaye Sow kooku mooy way juru sama baay léegi ñaar ñi nga xam ne ñoo bañ a ñëw di Mayaara Jum ak Demba Yëmmu Jóob soo demee ci biir Jazbul Murid ba Cheikh Ibrahima Fall ma nga leen cee tontu ma nga naan ayaa Mayaara Jum wa Demba yëmm Jóob fa quumaa wa taxallaa an izzati dunya wa qudaa izzatallah fa kullu izzatin bila zillatin istidrajun falaa tunaalu izzatun indallaahi illaa bi tarki izzatin lillah wala tunaalu raaxatun inda allahi illaa bi tarki raaxatin lillah wala tunaalu shahwatun inda allahi illaa bi tarki shahwatin lillah banam àgge yow ma yaara jum ak demb yëmu jóob na ngeen jóg suññeeku tedd ngay àdduna jii ngeen di dàkk te wuti tedd ngay suñ borom na ngeen xam ne bépp tedd nga boo xam ne bii jëf ak toroxlu ak suufeel sa bopp jiituwu jiituwu ko woon na la wóor ne leen wóor ne ab jay la teraanga kon mënee su koo amee lu dul ci suñ borom nooflaay it mënee su koo am lu dul da ngaa bàyyi nooflaay ngir jëmmi yàlla bànneex tamit mënee su koo am ci yàlla lu dul da bàyyi bànneex ngir yàlla ab taar tamit mënee su koo am ci suñ borom lu dul da ngaa bàyyi ab taar ngir jëm jëmmi suñ borom ak njaboot tamit mënee su koo am ca suñ borom lu dul bàyyi sa njaboot ngir jëmmi yàlla doom mënee su koo am ci yàlla lu dul da bàyyi doom ngir jëmmi yàlla waaw alal tamit mënee su koo am ci suñ borom lu dul da ngaa bàyyi alal ngir jëmmi yàlla wala tunaalu daarul axira illaa bi tarki daari dunya li wajhillahi alkarim mënee suta am kërug alaxira bu jàkk lu dul da ngaa bàyyi kërug àdduna ngir jëmmi suñ borom subhanahu wa taala kon xam nga ne ñi nga xam ne dañoo jàpp ne Cheikh Ibrahima Fall jàngutoon ñu ngi ci erreur Cheikh Ibrahima Fall rawatina bi mu daataan ñu ngi tubaa jàngoon ba xam lu nit di war a xam ca la toll woon daan jaamu yàlla gépp jaamu yàlla ndax sëñ Saaliw ñang nettali nañu ne Cheikh Ibra ci tànkam bi ci kostanam bi amoon na benn daar daar boo ne dafa jigoon ca kaw wax wax na leen teg na ci baaraamam benn bis ne leen lii day maa ngi leen di xamal ne julli gu metti moom ma ko yóbbee di ma daan daan seet si sëñ Tuubaa kon xam nga ne kenn ëpp ko woon xam-xam kenn dàq ko woon a jaamu yàlla ginnaaw loolu mu daal di sanc dëkk bi ñuy wax bopp jaara te ñu gën koo xam ci Tasineer ci la buur yi tàmbali di jébbulu ci moom di dugg ci lislaam ni ko sëriñ basiru mbàkke waxe ci minanul baaxil xadim bi mu الشيخ إبراهيم فال لم تمضي على مبايعتي له سنون حتى اجتمعت في أمره ونهيه على تربية ألوف من المريدين السالكين على يده وعشرات ألوف وأسلم بسببه ألوف من كجور وبول من بيوت الأمراء وأتباعهم الشيخ إبراهيم فال بمو جاين توبا wiiw ci jaayanteem gi yudul ay at yu néew mbolo mu bari di wii ci ndigalam di moytandiku ay tere mu di leen tarbiya ay junni junni yu soobu ci loxoom jëm ci seen borom ak ay fukki junni yu tabbi ci lislaam li ko tàmbalee ci kaccoor yi nekkoon kajoor ak bawal ak sin ci néegi buur yooyu ak dameel yooyu loolu mooy la sëriñ Moussa ka wax ca way wa mu ne ko yaa yóbbu mbaaxaan ci xafóor yaa tax ba xol ba dootu fuur yaa tax mu sànni yetu buur fab yetu ngëm di wut texe yaa tax ba Abdoulaye xaar taxaw fi bunt di fa xaar woyof lu bay lekk daqaar ngir sopp bamba miy joxe te xam ne seeni baaya moom fedeer ba taalagul kënoom ku mas a gis ay jamonoom xolam ba daawul yox yoxi mu ne mbula ki sàq ki sugeer dañ daan faloo ko soli kuur yaa tax ba diine di fa leer toxal nga póon mañ daan toxe mañ daan toxe diggante njukkeeg jamatil dañu daan daje daje naa ne butéel maanaam butéelu sàngara yaa tax ñu jébbalu ca teel fal njaga yaa rëyi pexe kon dëkk yooyu sëñ Moussa Ka lim yëpp mbooloo yu bare bari jóge fi tàbbi ci lislaam ngir xool Cheikh Ibra jege gi mu jege boroomam ak leeri suñ boroom yi nekk ci moom kon noonu la nekke woon ba gis nga ci ab tënk bu gàtt daal ni mu saxe woon nekk ndar bi bi sëriñ tubaa di dem ci géej gi diiru li mu nekk ci géej gi ba ñu ñëw ñu ngi ndar génnul ndar ngir di dem ci colonialiste yi di bëgg ñu gëstu mbirum sëriñ tubaa ak leeral ko dëgg-dëgg kon ñu dal jàll léegi ci waxtaane ndegam waxtaan wi moom dañ koy tënk rek yi nga xam ne moo ëpp solo ñu indi ko kon ñu tox léegi wane as lëf ci ay kusufaatam maanaam yenn ci ay miracle yoo xam ne suñu borom feeñal na ko ci moom ci jëmmam bi ma ci njëkk a nettali mooy bi ñu nekk ci daara ji sëriñ Saliou Niang wax nañu ne jamono yi ñu nekkee ci daara ji nekk ci tooli maam Cheikh Ibrahim yi nekk ci gébb faal nen at dañoo bay dugub ji bari lool ñu daldi defar dugub ji mu nekk ay jaag ci àll bi yàgg fa lool ba nawet bi agsi bi nawet bi jubsee asamaan si daldi xiin dënu ñu daldi ñëw ci maam Cheikh Ibrahima ne ko ah dugub ji day dana tooy ndax asamaan saa ngi waaj a taw nee na mënu leen Mikaayil day ñemewut a tooyal dugub bi Sëriñ Tuubaa ji taalibe yi ne cell dem toogaat ab diir dil siwaat ko mu ne leen Mikaayil mi taw du tooyal dugub bi sëñ Tuubaa yi ñu toog ab diir asamaan si dal di ñuul taw bi tàmbalee xeeñ ngelaw li tàmbalee jóg ndox yi tàmbalee dal mu dal dina tëll bi mu génnee ab néegub càkkar ab càkkar mooy néeg boo xam ne bii daaj nañ ko ba noppi te kenn xaddagu ko ñu yé fekk yéegee nañ ko ci kaw sàkket per yi genn garab gu nekkoon foofu te teewlootu ma ngeer la wala rat la señ saaliwu neena ci la dal di faqlu bañ ci fàqee lu bari defal ko ci biir neeg ba bu mu duggé ci neeg ba dal di tedd njaaxaanaay ñu jël ubéer ba wéer neena bu mu jaaxaane ci neeg bobu ab diir asaman ci dal di na wuréet jant bi ne dang la wër gébb fal gépp dal di tawba toy tooy fal ak ndox dalu fa kérok bi cheikh ba génné dal di ne ah mi ka tuba ji mu ne mom jot na ndigal fépp lay taw ma romb ko fa wax ak ki nga xamne mo koy tawloo ñu far fomm taw bi fi ci gébb fal ñaareelu xissa bi may nettali foofu mooy Serigne Saliou Niang wax nañu ne benn bis toog na ci kanamu maam Cheikh Ibra ñoom ñaar kenn ñetteelu leen nee na ma toog ba yàgg ma xalaat ci sama xel daal dina ah man day tey am naa ngëneel lu rëy maag sama kilifa gii toog kenn ñetteelu ñu fu bëtam bi wëlbati ko rek dal ci sama kaw nee na loolu ci sama xel laa ko wax mu damay tontu ci làmmiñam ne ma doom loo ci jublu yàlla na ko sa borom defal ñetteelu xisa bi may nettali foofu mooy sama baay Cheikh Sow sëriñ Cheikh Sow nettali na ma ne jim bi nga xamee ni bii nekk nañ ci daara ji noonu tawat ju metti daf koo dal tawat ju ko xaw a jaaxal maam Cheikh Ibra dal di santaane nañ ko yóbbu ci àllub ngol njaay ci Jurbel nee na ñu daal di koy yóbbu ci genn keppaarub garab bàyyi ko fa suba lañ ko fay indi ba ngoon lañ koy jël si waat nee bu ñu xëyee noonu la ñuy def yóbbu ma fa bu ngoon jotee ji ñu jël si ma ba yàlla def ma tane bi ma tanee ñëw mu daldi ne ma cheikh yaangi ni nii ma ne ko waaw nee na mu daldi tek loxom ci sama bopp daldi may ñaanal daldi may wax ni ah da nga gudd fan de da nga gudd fan joojee mu ko waxon ba fi ni tollu ni mi ci kaw suuf di dund kon lolu tamit bok na ci ay kiimaani mam cheikh rayu fall ñentel bi moy serigne saliw wax na ne benn bis tok nañu ci wetam talib yu wër ko ñu tok ba yàgg yëre yim sol toy xep di sit ak ndox ba dañ ko suñu wëlbatee ko diko ndox mu bare bare genn ci neena mu dal di len wax ne waw dafa am talib bu nek ca dexuk ndar ga ci géejug ndar ga di nek ku galam di dawal ba ci bir biis si jóg gal gi wonge ñew mom mu na a mu dal di wo sama tur suñ borom mayma ma dem fa xettali ko ba tere mu suux mo waral sama yiri yi toy lolou nak xam ngeen ne bu fekkon ne soko gisso ci walu tasawuf da nga gis ne tasawuf mom xamna lolou ndax wali suñu borom may na leen benn seen jëmm xar def ay jëmm jëmm yu dul jeex noonu ngeen koy déggee ñu koy nettali ci xadibul baan al mus al mawsili bokkoon ci labdaad yooyu nekkoon Irak ak ni ko Serigne Moussa Ka nettalee ci Serigne Touba rek wax ne day dox ci jaww ne njanaaw di xotti diilay asamaaw lu mu wax ci diiwaan ñu ne waaw muy fal di folli ci lu sax mu ne day dund guddi du nelaw bu jëmm ñëpp ne selaw mu dem ci pii bu ne xelaw bu bët setee mu dina wax ak xisa boobu sëriñ tubaa doon wax ak naar gànnaar ba muy abdullahi dëkkoon tagaa nag waxoon sëriñ tubaa ne ko daal ragal naa bu ñu ma robee ci biir bàmmeel su ma la fa gisul tiit naa mbàkke bisu kero te suriñ tubaa wax ko ne ko suñ borom may na ma man akuk yaatu boo xam ne gii mboolem taalibe yi ma yaakaar ca penkook ca sow bu ñu faatoo ndowoon ñu teg leen ci seen buntu bàmmeel bu ñu leen yooree kenn ku nekk yàlla may na ma yaatu ku nekk man nangu la ci sa buntu bàmmeel yóbbu la ci sa kërug alaxira nag yomb naa xam lool ndax léegi bo xolé télévision rek man nga man nga mën ngaa daal di gëm lolu science won nañu yu bari yu ñu mëna taxé gëm karaamay wàll yi ndax kenn nit ko xamni ki dafa tok ci télévision bi di wax ay junni junni télé nek ci biir réew mi kenn ku nek di xol jëm jëm ji lolu te nit ku gëmul yalla rek moko def kon nit ko xamni ki làq na ngeerumul suñu borom bu la waxé ne la mën na maa xett leendoo junni junni nit ñu faatandoo ci wenn waxtu lolu suñu borom mën na lu ëpp lolu ñaarel ba mooy wàlli yu suñu borom mën na ko may jëmmam di màgg di màgg ba fees dell àdduna bi ñëpp di ko gis fenn fu mën a doon te nekk jënn jëmmam ji nit nga xam ne noonu la ibnu ataaillahi waxe woon ne arrajulul kabir yamlaul kawna walaw duiyal xutbu bi xajarin la ajaaba nee na jëmm ji àgg ba mat sëkk ni doom aadama war a mate suñ borom matale ko noona day fees dell àdduna bi boo ko wowoon ci doj sax mu wuyu la kon nag ci ab tënk dañuy netli fofu ben xew-xew bo xamni ne dana am yu mu ñu won ci yu bari yu nit ñi di def di ko le mam Cheikh Ibrahima Fall te bokkut ak mom muy Serigne Saliou Niang nettali nañu ne mam Cheikh Ibra amon na ben jarbatam ben bis jarbatam bi jël gën gi nga xamni moy ak gën mam Cheikh Ibra gënu mam Cheikh Ibra di ko ko sekkar ci muy gën toxu gi dal di ko sekkar ci di ko sekkar ci ba yag mu seen lu nekk ci bir gën gi mu ko génnee mu daldi tek genn génn ci genn gi bëgg ko ëpp ngir loola genn fi muy bëgg ëpp genn gi bi maam cheikh yi rek gesso yem ci dafa bitti loxo genn gi genn gi dal daano daanu mu ne ko xé xé ah bu genn gi laaloon sa gémmiñ day lepp lo jëfaloon sa borom mën naa yàq bisu tay nga ñàkk ko mu ne ko ah kon day faal mbir amna ndax li day ñi la roy bari na mu ne ko li amna ñuma ci roy mu ne ko waaw maam cheikh yi dal di lu dal di ne képp koo xam ne ki yor nga genn di tux cheikh yi nee na nga ñëw ti indi genn gi sëñ saaliw neena na dajale ñu dajalee gën gënni tuxu ya ku ko sotti woon ci ab këll dana ko fees maam cheikh di wër gënni yi rek nan leen ah, eh, dan na xalaas kuy root fees léegoo di tanq di tuur ana fan ngay jëlee ndox kuy root fees léegoo di tanq di tuur ana fan ngay jëlee am ndox dal di leen di wax ne xaal bi nga xam ne moo may dikkal bay waral may taal gënd gii jigéen ju toll ci weeram su fekkoon ne def jam naa ñaw ca koll ba jël naa num soxna soosi ñaari bakkan yépp faatoondoo ñuy sëf ma bàkkaar bi du ma tax a mën a giif gënn gi rek moo may tax a mën a giif waaw ndax cheikh ibrahim fall dafa bokk maqaamaam dafa bokk ci maqaamaatul majaazib yi majzuub mooy kan mooy koo xam ne ki àgg na fa gaañu baax ña àgg waaye jaarul ci yoon bi maanaam moom xamul fu fu yoon bi nekk dañ koo taxañ rek sànni ko àgg na fa ñëpp di àgg kooku nag mooy kan mooy jëmm joo xam ne ji bu la ñaanalee mu nangu dees nga barkeelu ci moom waaye nag deesul topp lépp lu mu def rek nga topp ko nga roy ko ndax moom kenn santu la nga roy ko kenn santu la nga topp ko moom it du ko santaane kon te loolu dinañ ci indi lu gën a leer léegi ci Cheikh Ibrahima Fall ak aw fanam yu mujj Cheikh Ibrahima Fall ak ay fanam yu mujj kon ñu am ay xissa yuñ ci nettali xissa bi ma ciy njëkk a nettali mooy ba tey maa ngi ko jëlee ci sëriñ Saliou Niang bi ñu nekk ci daara ji mu ne Cheikh Ibrahima Fall bi mu taan génn jamono daan na toog ba mu ne ah jamono ji sëñ Bamba nekkul Cheikh Ibra nekku ci ndaw togg gumba ak gaana gaana gi dana am bët yu mën a xoole waaye du am loxo yu mën a jàpp gaan gumba gi dana am loxo yu mën a jàpp waaye du am bët yu mën a gis ñaareelu xisa bi mooy sëñ Saliou nee na maam Cheikh Ibrahima Fall bi mu daataan génn jamono fanam mu mujj daan na soññ ak njabootam ak taalibe yu mag yépp daal di wax ne ah na ngeen jàngal xale yi sharia na ngeen jàngal xale yi sharia ndax man Cheikh Ibrahima kat sañ-sañ laa yore te sañ-sañ bi wéy daal di ne ah xalaas bu ñu demee ba ci kanam gone yi dañuy wiyee doole yoon wi te duñ jëfe-jëfi yoon bi daal di ne su boobaa nag ndab mi dab leen daal di ne ah xalaas ginaar gi dana yëlbu di te saa su dee yëlbu ci digg manding lay yëlboo te saa su yëlboo cuuj bu rot bukki dana la for nee na moom sëñ Saliou nee na maam Cheikh Ibrahima daan leen wax ne ah ndigali sëñ touba yi day ñaar do nga ci dess muy magal geeg jumaa ji màggal geeg jumaa ji day lu ci sante bu ngeen mané ma ngeen ko def bu ngeen mënul ma ngeen ko def waye bu ñaar yoyu jalle luñu ñu sante ma ngeen ci wéy seen sago neena daan na leen denk lu bari daan leen wax ne adom adiyé na ngeen sét ku ngeen koy jox ndax adiyé kat képp ko jox adiyé fu mu sank adiyé je rek fu mu sank adiyé je rek lu mel lay baye ci xolub ki joxe adiyé ji masalam luy lolu su fekkee ne ji nga jox adiyé ji delloowu ko ci yalla waaye da koo topp bakkanam jaamoo ko bakkanam yow da ngay jaamu sa bakkan rek foo mën a toll kon léegi daal Cheikh Ibrahima Fall mi ngi génn bi muy génn jamono sëñ Saaliwu nee na dafa fekk yàlla jaa ngi sotti poussière bu bari mu def pënd bu bari ci biir pënd boobu ci la génn jamono loolu mi ngi tombeek bisu ñeenti fan ci ak ngoon weeru tam xarit ama tam si 1349 ak moomu ci la raay bi agsi ci Touba bi nga xam ne ñu ngi gas raay bi ngir mu agsi Touba di jot vidéo yu am solo yi bàyyi koo fii ci HDP religion da ngay bés fii ñu wax s'abonner boo noppee ñu teg ci cloche bi